wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin xayrul xalqillaahi asrafil anbiyaai wal mursalin saydi kulli urbi wal ajami wa alihi wa sahbi wa man wala ajmahin naw bu ñu santee yàlla te war sib jaam si tàmbale lépp lu mu mën doon julli ci nga xam ne mooy gën ji mbindeef tax ñu bind lu ñu bind ñu ngi leen di nuyu leen ziyaara di saf nag suñuy kàddu tekka ci kàddu kilifa gi ngeen jël léegi non dogalu yàlla moom jaam bi nga xamee ne bëgg na mu tali ak ngërëm daf koy nangu muy sunu rak yu El Hadji lay Laman ngeen di ma laaj nag ci organisation sociale bu collectivité lébu muy loo xam ne neex na waxtaanee waaye nag si période yu jafe ndax histoire mooy wax loo xam ne fekk woo ko loolu nag su amee te nga fekk ay version yu baree baree bari dang siy seet bala doy nga teg si sa loxo te man bi ca yee sa des loolu mooy euh, jikko nit ku baax waaye li ngeen ma laaj mooy collectif yi lébu yàgg na ku ñoo naan jamono ba nga xam ne yaa ngiy gàddaay mu booba Égypte moo fi ne fa la civilisation tàmbalee te ñoom ils ont vécu en Égypte avec l'éclatement de la vallée du Nil si la ñu saawatoo mais yàlla def nag baatin toppoon na leen baatin ba leen toppaloon moo tax ñu dajale gox ak gox di daje ndekete foofa doon ñu converger benn benn lieu boo xam ne mooy won seen destination ñu mas a ànd ak baatin lañu foofa mooy fan dangeen dégg jamono bu ne muy bible bi di alxuraan di yeneen i téere yu ko jiitu ñu wax la terre promise bu leen ko jàppee fen terre promise mooy fii mooy presqu'île du Cap-Vert mooy fii xam ne fa la tukki yam fii mooy terre promise te àddina yi ndox ba jamono bii xam nañu ne lépp lu ñuy natt ci àddina bi nga dégg si turu Sénégal du ngóor ak ñi ko jiite barkeb suuf si la ak place bi ci dogalu yàlla loolu dañ koy def parenthèse waxtaan ak yéen ci la nga xam ne mooy seen particularité si biir population yi Sénégal yi ñoom dañu mas a nekk ay nit yu indépendant notaire rek lañu mas a bañ ci àddina jaar nañu Éthiopie ñii jaar nañu Libi ñii jaare Libi mooy ba ñuy jógee Égypte xam ne ñoo jox boori Méditerranée bi wàcc Libi Maroc dugg désert du Sahel teerse Waalo ak Fuuta ñenn ñi nga xamee ne ñoo jaar boori Soudan ñuy wax Soudan wàcc boori Éthiopie ñoo fëlëse ba royaume Mandeng ak royaume Daadogos ak seen ñooñu ñu si ëpp ñu ngi si dans le Saloum foo dégg ñuy wax si biir ñoo ñu ñuy wax euh, waa wanaat dëkk yu yàgg yooyu cosaan yooyu fépp lébu yi jaar nañu waaye seen point de convergence moo le premier état olof muy waalo ak jolof ndax waalo jolof waalo moo ko jur à partir du Jolof nag sa la yàlla dogale xeet yi tribu yëpp a daje ndax ñii dañ jaaroon ci boori côte bi ñi jaar si jungle bi waaye yàlla dajale leen au Jolof ba ñu ne ils se sont dogalu yàlla foofa ba ñu toogee toog toog ba xamee ne nañu tooge daal nañu nañu bëgg woon a tooge mënuñu fa ñu gis am nay gàllankoor ñu gisee si seen biir gàddaayoo foofu nag si dogalu yàlla ñu ëgg si yii tey muy presque di kag dina wax am na ñu fi fekk waaye ñooña taxu ñoo leer gi fi nekkoon ñooña taxul woon koo weti bi def fi waaye ñoom jëfandikoo ñu woon géej mooy loolu ñu wax soose te soose yi génn ñu si lébu yi ndax say ñu si bari ñoom seen cosaan bokkaloon làmbe dafa ñoo xam ne ñu ngi génn si soose yooyu ba ñu ñëwee comme mbooloo mu nekk dana am ay njiit ak xeeti dénkaane ci loo war a jëfee ci sa doole wala sa xam-xam wala leneen ñu def organisation sociale ay lamaana fi ji lamaan yi dañu defoon waaye booba lamaan bu ñu koy tànn dañoo seet koo xam ne boroom famille bu mag la am alal am ay suuf moo tax dañ daan taamu place bu ne ña fa jëkk sancaka bu ñu tànn ren ñooy ah, tànn si ñoom ñu dem ba sa biir ñu ne lii de bu demee du wéy parce que bu boobaa day aju si benn famille rek ñu dal di ko di tànn ci biir bu ñu dajalee mbooloo mi seet koo xam ne am na xam-xam yaru na am na jàmm ak nit ñi duggante ne daal ak nit ñi ñu def ñu dem ba biir loolu ëlbatiku ñu ne daal ah comme ay xeet dafi nekk ay xeeti xeeti xeet nañu ko xàjjale so li jël nag douze tribus ñu def leen quatre fois trois trois fois quatre quatre fois trois mooy ñetti xeet yéen ñu boole leen ne yéen yéen ak moom pal tàngam ñetti xeet yi yéen ñu boole leen yéen ak moom pal tàngam ñetti xeet yéen ñu boole leen ne man ba muy ñeenti tribu ñii jaraaf ñu ndey ci réew ñi euh, saltige ñenn ñi jàmbur waaye ki nga xam ne moo yore baat bi moom lañ doon tudde jaraaf waxoon naa leen nekk nañ ko ay lamaan ba bi ñu agsee si maam maa faan coow am coow am waaye bo boobaa ma suñu nekk si domination kenn maa faan jéen nag bi nga xam ne na lamaan mu am coow ñu ne dañu koy dindi bokk yi ne loolu du am fii ak fal ñu di dindi masu fi xew te loolu moo am ba léegi bu ñu xësee ba fal la dee rek kenn du la fulli loolu du jig nit ñi sax waaw loolu moo tax ba loolu amee bokk yi taxaw moom mu dal di génn fii dem sanci beeñ beeñ googa mu sañca ak ay jarbaatam ak ay jigéenam ak ay xaritam ñi nga xamee ne su si woon nañ ci ñoom ñu sañ ci beeñ loolu moo waral beeñ bi de ndakaaru dóor waaye si teetal ni ma sànq ma ne la ñoom dañu ma rafetoon aw tërëlin ndax buur ba jolof moo commandé woon jolof ba tefe si géej waaye lébu yi daf leen daan bàyyi xel ndax ne loo leen laaj ñu war la ko jox dinañu ko jox mais noteen moom masuñ ko yaa ñu moom masul am <laughs> masol am yàlla dogal na nag bi nga xam ne dox nañu ci jaraaf nañ ko jëkk dénk benn famille la woon rek gënumu Tony Diop moo jëkk nekk jaraaf Gana Four nekk na jaraaf Diop Diop yi daal nekk nañ fi jaraaf lu yàgg mu mujj gi ñu ne kon dafay topp benn ligne partenaire dajaloo nag ne jaraaf lébu yu moomuñu ko dañu fi fekk jaraaf saltige léegi ñu moomuñu ko séeréer yi dafa am ay saltige euh, kii na mu tuddati sal euh, baneen ba ndey ji boobu nag lañuy ñuy inventé ñu ne boo xam ne ku ñëw si léegi yi nga koy fekk boo demee ñoom nga koy bàyyi ñu ne kon ndey ji réew ndey ji réew la mu doon boo xam ne c'est une première dans l'histoire de l'humanité waxuma du Sénégal wala de day ndey ji réew foo ko dégg rek ci lébu gi la ñu seet xeet ñu doon wax xeetu dëngaañ si a jël doomi dëngaañ ñu ko wax buubu soxna mu bokk si néegam yu ga maam ay maamam ñu ngi gàddaay woon jolof ñëw fi si lañuy ñuy jëlee buubu soxna ñu def ko mu nekk premier ndey ji réew ah ndey ji réew boobu nag dana fal jaraaf jaraaf dana fal saltige waaye ñooñu ñëpp nag bu ñu falee saltige boobu lépp lu ñuy def muy muy muy ndey ji di jaraaf di ndey jàmbur dañoo dem waxtaan ci ak saltige mu dugg seet ka parce que saltige borom bopp lay doon man xeet woowu laa bokk moom yuur la yuur yi ñoo yoroon pal yi li jiitu ñu ñëw mboxeex ndax daa muy tudd jandeer mooy jëkk lieu de migration bu lébu yi dañ laa peuplé fii foofa lañ nekkoon ñoom ñi ñi ñëw fekk si leen fa ñu moom suuf yëpp yuur yi moo tax ba ñuy départ foofu di ñoom ñu ne comme yàlla dafa leen bi teranga du ñu dem ñu gàddaay ñëw mbirum calaan ba wàcc mbaaw ñëw lu yàgg a mboxe ñoom ñu dóore dellu si bu ñu dellu si nag di laaj seen ak pan ñu ne leen ngeen ko yéen ko fa ngeen noon faraw da ngeen ko toog ñun ñu jiitu leen fii ñoom ñu génn bëgguñu benn pos waaye yàlla mi nga xam mooy defar lu ne bu jotee toog nañu ba jamono yi ñu ne xeet bu day noonu duñ ko bàyyi mu neen nañu def ñu def leen des médiateurs mooy conflit bu mën a am ci seen loxo lay dem bu ñu génnee ni conseil constitutionnel mer rek bu génnee lañ sa wax àtte boobu mooy wéy waaw loolu mooy organisation sociale wax naa leen ma ne leen mën nga ko méngale euh, président assemblée nationale loolu mooy ñi nga xam ne ñoom lañu ñu tuddee ay ndey jàmb ay jàmburu yoof am na lu ñu tuddee armée armée nationale xam nga moo yor doole ñooñu ñoo nekk frais yi am na am na ñoo xam ne moom la ñu wax Sénat Sénat xam nga am na fii moom la ñu méngale mag yoof ndax xalaat dañu yor amatuñu doole waaye am nañu xam-xam am nañu xalaat loolu mooy organisation sociale bu lébu mu doon lu extraordinaire parce que tubaab lu mu toog ba di ko jël di ko tricher loolu am na solo te ñoom bi ñu ñëw fii en 1432 la France était un royaume on l'appelait la Gaule dem na ba si biir elle à des conflits énormes ñuy defante coup d'état ba ku ñu wax Napoléon falu fa te waru woon falu daf boppam buur yooyu nag ba ñu ko seetee ñu ñëw di si colonie yi di étudier dundi ne xeet yi xool ñu ne lébu yi lu mas am si ñoom ñoo ne naan la mas a doon reyante tojante bopp seen biir mais gan bu ñëw di si am ab dogal ñu dal dina ñii dañu xam seen secret fédère bi bind na si ndax fédère bi bi mu fi nekkee gouverneur buy dem vérifier na xeet yépp am ñoo xam ne sax takk na sa ay soxna waaye dafa bind France ne leen benn communauté ngi fi bu ngeen war a bàyyi xel muy la collectivité lébu nit a ngi ñoo xam ne ñu jub lañu ñu màndu lañu ñu xam seen bopp lañu ñu am gër mais ñu dëgër bopp lañu donc on peut avoir si ñoom li ñu bëgg lu mooy parcours passé loolu moo lay xamal ne kon lan mooy lébu constitution française ñu ngi ko sàcce fii li ma leen wax nii ci la wuy parce que booba armée armée armée ñu am ku am doole moo fay dem dafa am âge de départ d'intégration dans l'armée ak âge boo xam ne si nga war a bàyyee loolu mooy frais ab âge nga fay dugg ab âge nga fay bàyyee te ñoo yore doolee dëkk bi xaw ma wax na leen ko wala déet frais frais boobu frais boobu il représente l'armée nationale wala nga defa FSD force de sécurité et de défense boo ci jogee ci far yi dem si jàmbur yi mooy ñi xamee jóge nañu ci armée nekk jàmbur am na nañu xalaat mën nañoo doxal seeni tànk di dem ay mission avec l'extérieur di ñëw ñooñu mooy jàmbur Yoff ils ont un président à leur tête ñoom itam ñu roy ko c'est l'exécutif le gouvernement ñu ne mag yoof mooy ñi nga xam ne passé nañu jàmbur nekk mag yi ils ont la sagesse ils ont l'intelligence et la sagesse mais amatuñu doole def amoon tànki jóge fii di tukki di ñëw ñu tuddee leen mag yoof c'est ça le Sénat waaw ah, loolu daal laa ne woon ko leeral ba ñu xam na ñun on a copié sur personne et tout le monde a copié sur nous ñu yàlla dolli leen sutura tey nag li nga xam ne mooy suñu cat yàlla na fi jokk mooy euh, ñàkk a juboo suñu baroom dana ko def ndax euh, juboo neexul ñëpp juboo xeet wi neexul ñëpp ndax bu fekkoon ne juboo am na lii am problème yi am tey du am waaye nag ils ont tout fait pour nous diviser naka waa ji waxoon nag peut être ba ñu mën a am ba ñoom seen doole wàññi ko mooy essayer de les diviser ils l'ont tenté à plusieurs reprises mas ñu ko man mais léegi nag malheureusement à cause de la politique waaw sinon bu dul woon loolu macha allah kon yàlla dolli leen sutura barkeel seeni yoon yi te li nga xam ne eh, moom ngeen nekk di ko liggéeye di. outil bu ñu yàlla jox ci jamono ah dana yàlla barkeel ko ngeen siy seet yàlla leen ko yàlla yombalal muy ñuy wax ak ñiy déglu ñuy wax wa ma zalika àlallaahi bi aziz asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu man nag maay Ibra Gueye Niang Ibra Gueye Niang ancien militaire gendarme gendarme armée nationale ayant servi au groupement parachutiste ah, Euh, euh, combattant euh, du premier contingent sénégalais au Sinaï, Senbat 1, 32e promotion, groupement parachutiste, 15e promotion élève gendarme. macha allah yan yàlla doon doon soutien maa ngi Sénégal yëpp góor ak jigéen mag ak macha allah.